Bueno. Salam alaikum, toujours avec euh, Au pain sourire euh, et Sakouyou Action pour l'espoir. Ce puits a donc été financé par un couple de jeunes sur, euh, sur Saint-Étienne pour leurs parents. Prions pour que Allah accepte euh, cette donation pour les parents d'abord, puisque ça leur est destiné, mais également euh, pour cette famille et qu'il fasse descendre la baraka sur eux, sur leurs enfants et qu'Allah leur accorde une progéniture pieuse qui leur rend euh, ce qu'ils ont fait pour leurs parents et, qu'ils puissent voir, euh, plusieurs années de hasanat récoltées ici. nga togg ci añ nga ragg say gone nga nga raxas ci ay bool ngoon jot nga gontaat am beneen paar nga wogg ci say tepp ak say mbote léegi-léegi taxawul ba mu jóge fi yéen ka def ngeen lépp wax dëgg yàlla dalle leen jàppale bu baax a baax bu soobee yàlla li daj fii mënu ko wax boo nekk yàlla na yàlla defal jàmm def ngeen lépp dara manqué ko anun ah, ci won non non wax deug yalla son de nga tok bis nga am juróom benn fan nga soko a benn yaman ba fii tilimoon don bëgg reey ak yéen ba nuy bëgg de way lepp lépp faju na faju na naka daanu foot bam lu set daanu bëgg sunuy tef daanu bëgg sunuy mbote daanu bëgg sunuy sellu daanu sangu set tilim tilimul foot mar naan manut naan ndox mi wala ngaan na te neex na yal na leen yàlla defal jàmm wa salaam leen nuyu kurée turam santam ñun xamoon jafe jafe ndox daal ñooy sonaloon wante dund nañu ba teen ñëwoon nañu fi ñooy sant yàlla bu baax que ñaan nañu ko def yàlla nañu yàlla may wér gu yamal gudd fan yu bëri suñ coon daal wàññeeku na ñoo ngi ci sant yàlla bu baax kontaan dong la ñu am kontaan dong la ñu am sab lii dañu jafe woon lii raam ndox yàlla def ba mu agsi si sant yàlla rek lañ ci am sab lii jafe woon nañu lool pour am ndox toujours nii robinet yi ñu ci amoon fekk te am tey ndox il nga toogal lu mun ñaari fan soog root am ay temps yi ci gannaaw rek dañ doon dem ba masa di fa rooti yor ay saret di dem di rooti wala dem ba mu yaman di fa rooti loolu moo fi amoon waaye diggal alhamdulilah rabil alamin bañ bi lu jafe woon ci ñun la waaye ba ñu yàlla indee ba alhamdulilah kontaan nañ bu baax dëggal ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla may jàmm bañ ne fan gudd ak wér gu yaram lii def jafe woon lool ku am fi problème la léegi nag bu ñu amee ndox mi dañ ci mën roos si cour lu baax in fi bis bu ci mën am ndox suñ mënee roos roos ci mën nañ ci liggéey mënu dem fenn su la nekkee fii jéem fi lijjanti am dara donc loolu laa doon wax jërë nañ lool nag ndax lii suma jafe-jafe la woon lu mot fukki at maa ngi koy maa ngi koy ñaan aw ma ko ba yàlla def ma ñëw ci seen loxo mu jaar ci sama loxo indi waaye maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal fan yu gudd li ma gën a naqari nag bi bii dafa taseeg bésu marché nit ñi ñëpp ñii ñii ñii xëy nañu marché ñii dem nañu Louga loolu rek moo ma naqari waaye maa ngi leen di sant di leen ñaanal te maa ngi leen di itam félicité seen maa ngi leen di ñaani nag C'est un village très particulier, 2-3 hein. km parcourus euh, tous les jours pour chercher de l'eau euh, euh, bonne à la, consommation. voici que vous êtes venu abréger cette galère du quotidien, cette souffrance. Masha'Allah, comme ils en témoignent eux-mêmes, qu'Allah accepte de vous et de nous et qu'il puisse nous permettre de faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Barakallahu fikum pour cette grandes actions et à bientôt, Inch'Allah.